Barthélémy Dias mii toog fii daje nañu fii ci place bi daaw defe naa ne septembre la Macky Sall def pour tëj Ousmane Sonko. ma ne ko ba Barthélémy dalal naa sa xel fii rek ñi ngi dund Macky Sall du tëj Ousmane Sonko su ko Ousmane ak jugeem ak administration ak policeem ak gendarmerie am mënuñu ñoo tej kasso Soyez mobilisés. Le combat s'annonce mortel. Le mot n'est pas de trop.

préparez-vous au combat chaque jour chaque heure chaque minute préparez-vous au combat Nous ne sommes plus au temps des révoltes de salon comme je l'ai dit. Notre moment de vérité est arrivé. Celui des véritables gladiateurs. Soyez mobilisés. Le combat s'annonce mortel. Le mot n'est pas de trop. C'est le prix qu'il faut payer aujourd'hui. ñu soxla wu yërëmande man ay nit yu dogu laa soxla ay nit yu am fit laa soxla sénégalais foo mun ci nekk ci Sénégal ak suñu mbokk yi nekk ci diaspora yi est-ce que pare ngeen daañu xeex de Macky Sall laay waxal daañu xeex ak moom su dee def ko bëgg a continuer jël bakkanam té nak bu len ci déglu kenn ku len nan da ngeen violent wala da ngeen bëgg fitna du yéggali mandam 2024 du ko fi fekk may wax nak wa APR ngeen déglu bu wax wa APR nañu xam ne réew mi duñ ci mucc buñu talé réew mi duñ ci mucc keur Matar ba mo ngi metti lol lol lol waaw ñi nga xamni ño nekkon garde yi sax gis nga ñi nekkon garde yi sax ñi nekkon garde yi sax daw nañ dugg ci biir kër gi. ñen ko auto yaangi ni ñu taal ndaysan mbir mi metti na lol lol lol tay gis nga ñoo ngi Kër Matar ba ancien ministre des sports. gis nga bis bu manifestation amate ba ngeen dajji seen keur ay milliards ngeen fay fek ay matériel yo xamanteni ni mom mo nekkon euh, ci biir salon maître elage Diouf. foofu la télé bi nekkoon télé bi nag daanaka dañ koo yóbbaale ñoom ñi nga xamante ni nii def nañ euh, bile attaque dañoo yóbbaale li nga xam ne moo di télévision bi. ku mu neex nag nga toog fële ne Sonko nitu fitna la j'assume. université bu Ndakaaru jël wàllam lool ci manifestation yi. sakaate nañ vraiment yàq nañ jël nañ ay ordinateur et tout ça mooy def nañ groupe ñoom ñëpp kawule wu ñëw. naam taal nañ oto yi nga. ku dee sa way jur juraat. ku dee sa way jur juraat. ku dee sa yaay juraat loolu du ay wax. mais lan moy ku dee sa yaay mais si warul a dépasser lolu sax lolu pour ñun ñun acteurs yi la ñun mbeuri ñokoy def ay slogan di ci di ci ay supporters mais mom yow nga bëgg a Sénégal suba ngay taxaw nan ku dee sa non mais. qui est condamné deux ans par notre justice reste toujours chez lui non la justice a été rendue au nom du peuple donc la décision doit être appliquée à la lettre l'État reste fort ou faible. Il y a que ces deux choses-là. L'État doit être fort ou bien faible. Citoyen, vous n'êtes pas le connaître. vous Donc nous, nous attendons cette décision de justice. Et pour terminer, c'est le moment de rendre hommage à tous ces députés en particulier le président du groupe parlementaire, qui, devant le président de la République, a demandé qu'elle masse pour notre collègue député Biram Soleil Diop Vous pas en commission technique on vous a demandé masques. vous avez fait le maximum possible alhamdulillah il est libéré tous les députés devaient vous rendre hommage aujourd'hui et de féliciter le président de la République malgré la faute grave commise par notre collègue député donc, si nous il faut qu'on soit sincère, il faut qu'on soit honnête et dire la vérité au peuple sénégalais qui nous ont élus pour être là. Donc, je vous remercie. Merci, cher collègue. lillahi wa inna ila rajo ay way Sonko dem na way ay way ko bari won fitna dem na ko monono sos dem na way ay ku ni wax dem na ku doon mabbu république dem na ko tàqale won bokk yi dem na ay way ko doxoon diggante taalib ak sëriñ si dem na ay ka doon saagalu sëriñ si dem na mortel dem na résistance dem na rapport de force dem na suwaay mobiliser dem na gatsa gatsa dem na dina ma rey baa mu rey ma dem na aywa usu dem na waay waaye bala ko kenn tàgg maa koy tàgge maa ko xam te ko topp maa ko yàgg siifur maa leen yàgg get mbato ko góolu aka regu di xaar bis maa bindi leetar bi ta xam ni ma koy toftalee maa ngi koy toftale ñi mu bokkaluk làng te nuréwul ak ñoom i doxin ka ca jëkk laa cee jiital parti socialiste di njëlbeenu parti maa ngi ko koy tàgge donte deen xar na waaye nag gii moom neex na ko lool maa ngi koy tàgge maam Moustapha Niass ma ca ASP maa ngi koy tàgge PRP ma ca Déthié borom leex yu diis ya maa ngi koy tàggee El Malick Ndiaye mi nga xam ni moom la bokk làng ma ca lam bu diis ba maa ngi koy tàggee ba Jumaay Fay ma ca kaso ba maa ngi koy tàggee tamit booy su ndaw soosu di ngañ jëmba ture te àllaw la lool di jéem euh, nuru nuru lu usu tey jii nag ci lëndi bii lañ ko jagat jagatee di ko jëme ca armée de rëbës baa boog yu kolda baa yu kotaal baabaa rek yu mu rek baax na tey jii nag la sarax sa nag ñii la Ibrahima Sall ma ca Suisse dana boog sarax si nee na kenn mënu koo teddoo sarax sa waaye nag Adja Rabi Sarr it nee na dana nangu jaxal yi ndax nee na jaxal yi kenn gënu koo yeewee ci nangu ko nag te jaxalam bu ko nangoo lekk ñëpp neen dagan na maître El Hadj Diouf nee na daana bokk ca guggunge ba kon nag na ñëpp xam ne bis naka tey ci altine bii du fan fanweeri fan ci weer wi ci la usu bool dem jeel usu dem na jeel ginaar ngi gàddu nenam jëm ci paxum till ginaar a ngi gàddug nenam jëm ci paxum tillu Ousmane Sonko gàddu na matlaam jëm ci kase bu rëbës kuy bokkam na ca wax kuy rekki bokkam na ca wax usu dem na jeel maa ngeeg wér gu yaram gu mat sëkk kaaseeruma ah ci lu ma yëgul <laughs> jabetuma awma insuffisance rénale awma benn xeetu jàngoro maa ngi nii alhamdulilah lépp lu mën a am nag gannaaw bu ñu defee seen force nañu xam ni Macky Sall la. léegi jàngoro bi ñu ci tudd nag am na wala amul. waaw mais Ousmane Sonko ñun ñi ko xam ñëpp te jege ko xam nañ ni day day day góor rek ak di góor ak bëgg réew mi waaye bari na jàngoro yu muy soxaale bi ci gën bi ci gën a siiw ñépp xam ko mooy Ousmane Sonko asthmatique la. toogee mom ni sax bo talé clip dalay wax ni la bo moné wañi clip bi xam dafa bari kersa way da ngay gis ni dina def ci pexé ba ba génn wala mu mu jundula ni clip bi da fay déranger kon bari na jangoro yo xamni ni amna ko comme ni ko sénégalais yépp amé wa mais loolu tamit ci ko wara yor réew mi est ce que tamit bax na ñi ñi génné nan amna jangoro jàngoro yi du handicap tamit non lolu mënul nek handicap xam nga lan moy handicap Euh, admis aux urgences. la situation se stabilise. Je le répète, nous lui avons demandé de cesser sa grève de la faim. Et nous espérons qu'il comprendra la de notre demande, parce que nous considérons que ndax bari na ñu may andal te xamuñu ko waaye nag ñi ma jege dëgg dëgg dëgg xam nañ ko mooy yàlla daf ma nattu ba may nekk gone ba fii ma toll nii ma ànd ak ay jàngoro yoo xam ne dafa laaj maa ngeeg wér gu yaram gu mat sëkk canceruma ah ci ci ci lu ma yegul jabetuma awma insuffisance rénale awma benn xeetu jàngoro maa ngi nii alhamdulilah. yàlla daf ma nattu ba may nekk gone ba fii ma toll nii ma ànd ak ay jàngoro yoo xam ne dafa laaj faju mais ku waxoon ne Ousmane Sonko yow 17 millions dinañ la mun a mun a bés. makki Macky Sall dina la jaay doole tëj la te 17 millions duñ la fa mën a génne billaahi Ousmane Sonko du ko gëm man sax gëmu ko te yéen ñii sax gëmu leen ni Ousmane Sonko ba léegi mi ngi ci kaso kenn mënu ko gëm parce que même Ousmane Sonko du ko gëm parce que tolloon na foo xam ne Ousmane Sonko bu doon wax da ngay sentir ni kii dafa wóolu askan wi bu koy Macky Sall di laal askan wi Sénégal jeex. man mi sax loolu la gëmul parce que boy dégg sénégalais ni ñu doon waxé ak ni ko Ousmane foofu fuñ ko fuñ yóbboon wax ji la Ousmane ko laal dañ lay lek kon Sénégal jamm du fi am mais jamm nga am gaay nga dox sen soxla ni gaay nga lek gaay nga nan té Ousmane Sonko mom mom ci boppam wallahi man gëm na ni day japp ni man maa ngi gént damay gënt wala man ko gaay liñ ma doon wax ni dëgg-dëgg kon ni ni mu ñi dox sen soxla ñi ngi lekk ñi ngi dem di ndugg ji ñi ngi feetu ñi ngi ñëpp gaa yaa ngi dund quoi oto yaa ngi daw dox nit yaa ngi dox nit yaa ngi lekk di naan nit yaa ngi waxtaan gaa yaa ngi kon moom ba léegi moom mi ngi ci loxo Ousmane Macky Sall mu tëj ko ci kaso ku ne woon Ousmane Sonko il y a de cela six mois ne ko yow du nga dugg ci kaso Macky Sall tëj la fa Sénégalais dox seen soxla wallahi mu ne ko mu ne la bàyyil kàcc mënul nekk bàyyil kàcc la la ci tegal munul nekk mais ngi koy dund

wala la nga doon wax waa ji ne war di nga ko def bu buñ teg buñ ko jéemee teg loxo ah dem nañ tey ba taxaw te taxaw boobu nag sacrifié na doomu aadama yi ñu ci rey cinq taxaw boobu sénégalais yi taxaw sacrifié na 850 prisonniers politiques taxaw googu noonu sacrifié na ñi nga xam ni ba léegi Macky Sall la ngi continuer di leen jàpp ci kaso yi ndax démb rek Macky Sall defeere na plus de 18 personnes ci kaso bi ngu taxaw bu sénégalais yi taxaw ko ci nekk ci ñun war ngaa seetu xam mais lan moo xew lan moo ma tax a taxaw nii est ce que man dama waxoon ni Ousmane Sonko yow di nga mës a dugg ci kaso ma toog benn bés te xeexu ma ma toog benn bés te sànniwuma briquet wala almet wala pneu wala cocktail molotov est ce que yow loolu nga diggante woon ak moom ce que moom nga diggante woon ak moom est ce que du li nga diggante woon ak moom moo ko poussé woon ci am fit am fulla yokk ko fit yokk ko lépp ba mu foog ni moom makki Sall mënulu ko dara bu mu koy wax yëpp Macky Sall la ngi toog tey Macky Sall wan na ko ni man mënal naa la dara malgré que ñi nga jàpp ni ñooñu bu bu ma la jàppee dañuy ñëw foqati la ci samay loxo ba léegi maa ngi ne téye te loolu un Ousmane Tounkara qui est indépendant self-made may doxantu di sol mel tayuma ko mel j'ai perdu la tête yéen ngeen li xew ñun li ñu nekkee tey ñu ko de vous n'avez rien compris yéen mbaa xam ngeen li géej jiir yi waa Sayai nga xam bu ñi nga xam ne jigéen lañu tey jii dañoo fas yéene woon démarrer grève de la faim man maa leen ñaan ne leen bu leen grève de la faim ndax dama bokk jàpp ni bokkul ak suñu gëm-gëm waaye li gën a garaaw mooy ku toll ci xeex danga soxla sa doole waroo bi sa bopp te am naa ñëwante bu rëy ci ñoom nag ndax dama koy natt ci saa bopp moo tax ma ñaal leen ko <laughs> apologize and continue.